ci ak mbaaxam bëgg noo dimbali rek tax mu yëkkati lu toll ni liggéey bi ci biir kër Serigne Sall mu yëkkati ko jox nu ko loolu day am nanu ci mbett moo xam ni ak xéewal yoo xam ne mënuñ ko woon a yaakaare feneen fu dul fii ba tax na maa ngi woo bokki jullit yépp ci lii ndax njariñ la ndax xéewal la yéene naa ko ñëpp maa ngi koy yéene bokki burit yi suñu bokki taalibe rawatina nag cantakon danoo am loo xam ne lu jombe la liggéey bi ñu ñuy delloo si ci biir kër sëriñ Saliou te nga xam ne ñun day liggéeyal sëriñ saali mooy mooy sunu àddina mooy sunu mooy moom rek moo ñu tax doon sunu borom sàkk kon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 Euh, xéewal ñëw na liggéeyal Serigne Touba egsi na ndax lu mel nii kat daa jafe waaye fii ko fi tàbbi da nawaat sëriñ Cheikh dañ ko bëggaat nii mu def kër sëriñ saaliw gi ni mu ko ni ko defaraate nga xam ni kees gu ne def na fay bâtiment defaraat ko euh, mooy ki jëkk a bëgg sëriñ Saliou Serigne Cheikh